ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara di ko naan day di way ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla léegi ko may soxna jaaram lu toll ci ñeent fukk ak benn ci ay maam jaara ñoo wattu alquraanul karim ca daaray maam jaar bu su bu poroxaan ci atum ren ci promotion 2022 2023 ñoom ñi lee daal dinañuy yegsi ci dëkk bu seli bii di Touba njetari kaamilu alquraanul karim bi ci kanamu membre du jury yi nga xam ne ñoo leen di diglu ngir wéral seen ak mokkal jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu lu ni mel daal dinañu koy amalee fii ci diwaan bu daaru Minaan ci biir kër ba Bassirou gi ñeen fukki maam jaare yi ak benn yépp daal dinañuy tari kaamil bi kenn ku ne ci ñoom ci anam bu mucc ayib la ko dalee baqara ba naas yi zalika alkitaabu laa rayb fii hudan lilmuttaqiin alladina yuminuuna bilgaybi wa yuqiimuuna alsalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa ma ربك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به wala in sabartum lahu wa xayrun lissabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun inna allaha ma'a alladina ittaqaw walladina hum muxsinun ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه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 allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahi rahmani rahim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 شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم gannaaw loolu commission bi nga xam ne ñoo yor lu jëm ci wàllum contrôle ak suivi ci njiitug sëriñ Muntaxa moom sëriñ Maamoor Pakala dañu amalee ko ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides gannaaw seen liggéey bu am solo daje nañuy wéral ne ci ñeen fukki maam jaare ak benn kenn rek lañ cëtee ñeen fukki maam jaare yépp daje nañuy wattu alxuraanul karim ca na mu waree sëriñ Moustapha Diop Ndar kenn ci ñoom moo ñuy dikkalaatal ci anam bi nga xam ne ca lañu doon saytoo mokkaluk soxna jaare yi lu toll ci ñeent fukk ak benn ñoo fa bàyyikoo alhamdulilah ndax lim bi mësta àgg foofu te gis nañ ne ay at mi ngi nii lim bi ak mu nekk la yokk ren ji àgg na foofu di ñeent fukk ak benn yoo xam ne ñooy candidat ya fa bàyyikoo ngir ñu seet leen seet seenu mokkal euh, niñ leen di seete it at mu nekk mooy rekk ni ko sëñ Omar waxe léegi Euh, dañuy wut ñeen fukki jàngalekat ak benn nu limub maam jaara yi toll rek lim bu toll noonu la ñuy wut ci ay jàngalekat kon ren ji wut nañu euh, ñeen fukki jàngalekat ak benn yoo xam ne dañ leen di tànne ci barab yu wuute barab yu wuute euh, niñ leen di tànn it ay charte la yoo xam ne kenn ku nekk day dëppoo ci ak charte boobu bokk na charte yi fokk nga doon ko wattu alquran yow mii téyele bokk na ci say at bu mu néew fukki at ak juróom-ñett ndax bañ wattandiku ak ndawee bokk na ci it fokk nga jàngale alxuraan diir boo xam ne lu gàtt-gàtt mat na ñetti at ndax téyele expérience la kon ku la gën a jàngale moo lay ëpp expérience yi téyele kon fukki chart la yoo xam ne moom la ñuy topp ci kiy téyele yooyu charte ma wax ci la bokk su ko defee nag benn maam jaara bu nekk e ñeenti sëriñ daara dañ ko téel sëriñ daara bu nekk mi ngi koy téel fukk xisib ak juróom e delloo ñu ko ñu jox ko moroomam kooko téel ko fukk ak juróom ba ba kaamil bi di mat kenn ku nekk e ni nga koy téele ab fiche nga yoon fiche boo xam ne dañ la ciy seetloo gagam gag dañ la ciy seetloo yàq maskaam dañ la ciy seetloo yàq xarafam dañ la ciy seetloo rungeem benn bu mu ci yi boo xam ne maam jaara bi def na ko des na ko marqué ci fiche bi ci fukki isib ak juróom yi euh, li nga xam ne mooy li ñu may maam jaara bu nekk mu gag ko mooy fukki gag ak juróom fukki gag ak juróom kenn du ko weesu kaamil bi kenn du ko weesu ci kaamil bi su ko defee rek maam jaara bi su taree noonu ba tari juróom benn fukki isib yëpp ñu boole fiche yooyu ñeenti fiche yi nag seet ba xam moom mii lii ñu ko mayoon ci ay gag ndax àgg na ca wala weesu na ko wala jege na ko foofa la ñuy ak mokkalam waaye alhamdulilahi kéemaan gi ciy am te amaat ci ren ji mooy ki ci ëpp ay gag juróom benn gag la am ki ci ëpp ay gag juróom benn gag la am ci fukki gàgg ak juróom yooyu te am na ci fukk ak ñeent yoo xam ne gaguñu benn yoon fukki gone ak ñeent yoo xam ne gaguñu benn yoon teg ñeen fukk ak benn yi fukki maam jaara ak ñett daal dina ñuy bind kaamil bu sell bi lu ñu mel di wane ba tey résultat yu am solo yi nga xam ni daara ji mi ngi koy wane saa yu ne